insha allah ñu ngi tàmbalee ci sa yaqulu sufahaaw min annaasi li waral ay bi muy sababu nusool bi suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee yonent bi dafa gàddaay dem madina munawara jóge a mukarrama daf ko ni ngir nga am ak yahuud yi jàmm booy julli na nga jublu fi ñuy julli fi ñu jublu te mooy baytul maqdis xam nga nasaraan yi ñoom seen xibla mooy penku nasaraan yi fi jant bi fenkee rek ak foo mën a nekk nag loolu dañoo loolu loolu lañu wutee ñun ñun kaaba gi mooy suñu xibla am na ñoo xam ne bu ñuy julli xarfu la ñuy yenu am ñu yenn ba Saalum am ñu yenn ba gànnaar bu ñu julli ñu nag suñu chance mooy fi jant bi fenkee mooy suñu penku moo tax ñu naan penku waaye xibla la ñuy jublu xibla waaye ñoom nasaraan ñoom fenku jënt bi rek mooy seen xibla ñoom ak fu ñu mën a nekk yahood yi ñoom seen xibla mooy baytul maqdis baytul maqdis mooy seen xibla léegi nag suñu suñu borom ne yonent bi pour nga am ak ñoom jàmm te mooy maslaa bi ba julli na nga yenu fa ñuy yenu yenent bi dem di yenu fa ñuy yenu da ko junj rek dana ko gën a yaatal ci kanam suñ borom ne ko nag sa yaqulu ne ko bis dana ñëw man sa borom may ndigal nga wàññeeku yenuwaat ci kaaba ga bu ko legee ñu manqué ñu dese ñu day jàmbaat dañ la naan moom dafay def di dindi tey mu yónni fii ëllëg mu yónni fële moo tax Chine bi li muy tekk mooy lu ñëwagul kon mooy ne kii la muy wax lu mu xam la parce que sa yëqoolu dina wax dana wax Chine bi lu lay tekki foofu la ñuy commencé mu ne sa yëqoolu dana mu wax euh, asufaa woy réer yi ñu defe ñi. xam nga asafiwu ci arab asafiwu mooy koo xam ne luy lor bakkanam rek moo koy yitteel lu yàq bakkanam moo koy yitteel am na xel am na xalaat waaye lu koy jëriñ mooy ko dara lu koy lor du ci ton du ci sonn mukk nag kooku muy asafiwu léegi kii jamo takkasir la mooy asufaaw comme nga ne al ulamaa kooku may jama takkasir bi kon way réer yi ñu dese ji dañ wax ni euh, mën naa tukkee ci nit ñi lu ñuy wax mooy lan maa anal wallahu moo leen wàññi moo leen albati yi an xiblati yi mooy seen xibla bi alati xibla bi nga xam ni kaanoon nekkoon nañu alayaa di si jublu danañ wax loolu wul waxal ne leen lillaay sax na ñeel yàlla almasriqu fenk waaye jant bi wal maxribu ak soo waaye jant bi yàllaa ko moom yeti dina gindi moom borom bi mu ngi saaw ku ko soob ak gindim fan la ko jëmee nag xanaa ilaa siraatin ci yoon woo xam ni mustaqim yoon wu jub la wu coow la te mooy diinul islaam borom bi ne wakka a nekka noonu ñu gindee leen jëme ci yoon wu jub wa jaal naakum la ñu leen defee yéen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ummatan ngeen di xeet woo xam ne wasatan da ngeen nekk xeet woo xam ni ku tanef ngeen tanef da ngeen nekk tànneef setan da ngeen nek tanef nek digg doomu diggante yahud ak nasaran da ngeen ci digg doomu li lay xamal digg doomu bi gis nga yahud ku ci sa jabar gis bax du ngeen bokk lek du ngeen bokk lal du ngeen bokk ndaa di naan mukk nasaraan yi ku sa jabar gis baax moog ba si te ñoo yem sa yónnee ci boo soxlaa rek yaa ci kawam nasaraan yi islaam ñëw nag ne yonent bi nekkal ci digg bi yow ku sa jabar gis ngànt bokk leen lekk bokk leen lal waaye bu leen lalante nag kon wasata nañ noonu ca digg ba la nekk tànneef ba lu teng bu ko fa lu teng bu ko jël lu yom bopp bu ko jël nag teengal bopp baaxul yombal bopp baaxul nekkal ci digg bi motam ni yonent bi euh, li tëkkoon ngeen nga nek yeen xeet wi nga nek suhada di way seede ala naasi ci nit ñi yomal qiyamati wa way yokkoon wa yokkoon mu nekk moom rasul yonent bi alaykum ci yeen seen daaji seede yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla mujjee yónni waaye suñu borom li muy junj mooy bu yowmal qiyaamee suñu borom dafay xoo yonent yi xooy xeetu njëkk yépp léegi nag ba mooy xeetu njëkk yi ne leen ci benn place ñëpp nag benn place. ne yéen lan moo tax gëmu leen moo woon xanaa amuleen ku ñoo di leen waar di leen dolli ci yàlla ñu ne ko déedéet kenn ñu lu noonu amut gis nga yonent bu ñuy waar jëmeñ ci yàlla suñu borom ne yonent yi ah ndekete yéen la ma leen santoon defu leen ko te moo gën a xam ne def nañ ko ñu ne ko ah kay yow suñu boroom lépp la ñu santoon def nañ ko jotal nañ de jotal nañ xanaa ñoom kay ñoo gëmul rek waaye jotal nañ suñu borom nii ah te nag layoo am na yéen xeet yi njëkk yi seen xeet yi ñoo leen kalaame seen xeet ñoo leen kalaame yéen yéen nañ kalaame kon nag na ngeen indi lay indi leen lay ne leen ak an seen lay nag ana kan mu leen seede ñu ne ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo suñu seede suñu borom woo xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaye yéen ndax da ngeen seede ne yonent ma yónni woon jotal nañu xeet yi xeet yi ñoo weddi xeetu yonent bi ne waaw waaw ñun de seede nañ ni ñoom jotal nañu waaye ña nga leen woon nag ñoom ñoo weddi xeet yi jiitu woon la commencé ca nu yonent yàlla noo ba ci Eesa ne xeetu yonent bi yéen ni ngeen mën a seede la ngeen fekkewul nag yéen fi mujj fekk bokku jamono ngeen di seede kuy seede nga seede loo xam suñ borom ni xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana yéen kan mooy seen seede kan la ñu ne ko ki nga mujj ni ci ñun muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu seede borom bi ne kooku nag bu ma yee toqaañ la waa moo tax moo tax ma ne ko nag wa na rasulu alaykum shahida mu nekk yonent bi daaj seede wa ma jaxal naa defu ñu ñun sa borom alxiblata qibla bi lati bi nga xam ne kunte nekkoon nga alaa ci moom ca njëlbént mooy kaaba ga ju daan julli illaa li naxlam dara ñu xam njëkk muy gàddaay jëm madina te daan julli ba mu demee madina nag ñu wàññi ko dara ñu xam ñun xam ak feeñal man yettaba koo xam ne dana mu topp rasula yeneen bi mi man ci koo xam ne yanqali bu dana ëlbatiku xanaa xibe yi ca tëstanam ya mooy dalaat ci kéefër ga na muñ ko dox fam jige won moy dem ci ga rek arab ni ana benn xaqi bayka moy man ci say ndëggu moy top na la moy man man top borom bi ne wa in naka la naka mom nak yen borom grammaire yi asal simba wa inna la wa innaka mom dal daal te moy wàññi bi mu leen nek na mu la kabiratan nek lu dis lu tiis la ila ala lazina ndara ñi nga xam ne xadda gi dina mu allahu yàlla te ñoom ñoo ñalee wa ma kaana nekkul nag allahu yàlla yu daa ngir na mu sànk iman na ko seen ngëm nga di ko sànk de mukk nag si monsieur julli ya waxtu iman pii day tekk julli dégg nga donc fi lay ngëm yaa fi tekkee julli euh, li waral loolu mooy xu yëy bun axtab yéefar la la xu yëy bun axtab moom moo dem ci jullit ñi ne leen yéen de da ngeen doon yéenu Baytul Maqdis gars yi ne waaw ba ngeen xëy rek bàyyi ko te li ma jaaxal yàgg ngeen ci yàgg ngeen ci xam nga jublu nañu Baytul Maqdis fukki weer ak juróom-ñaar muy at ak weer am ñu fukki weer ak juróom-benn at ak ñeenti weer lañ jublu Baytul Maqdis yéen bi di julli tisbaar rek am ñaar ak suñu borom ko ndigal. ne ko yenul ci kaaba ga moo tax jàkk ma muy tudd masjidul xiblatayni mooy masjidul xiblatayni borom ñaari xibla ya léegi waxee gudd ak xam ne jullit ñi ñaari mbir yi benn am na ci bu dee la ngeen doon yenu baytul maqadis njub la woon kon tey sànku ngeen yéen a ngi yenu feneen sànku ngeen bu dee loolu ak réer la kon ña ci dee njëkk ngeen yonaat ci kaaba ga dugg nañ safara ndax ñu dañ dee ci réer mu naqali saaba yi ñokk yonent bi yàlla wàccee sol bi nee na wa maa kaana nekkul allahu subhanahu wa taala lu yu ngir na mu sànk imaanakum seen julliya ñe njëkk ñuy ëlbati xibla bi seen julliya neenul de yàlla gërëm na ko ndaa borom bi raoofun aji ñëwenti la rahimun aji yërëm la bindaata ci nit ñi borom bi ne nag yonent bi fekk yonent bi dafa jibril doo ñëw dafa ñëw jibril mu ne ko bëgg naa nga sa borom mu ëlbati ma ci sama xibla maam ba jibril ne ko ah yaa ma gën a yell ci moom ndax yaa ma gën jege yaa ma gën jege nag muy teen rek di xool ndax wax yi baa ngi ñëwam déet di teen di xool rek di séntu wax yu bi ak jibril borom na xat dëgg-dëgg muy arfu taqiq nara gis nañ ñun sa borom taqalluba wajhika rabatiku sa cëlmaali fi sama yi ci wetu asamaan si yaa ngi teen di xool jibril mu ngi ñëw waaye ma xamal ni fa la nu wali yennaka daañu la méngale qiblatan xibla boo xam ni tardaha da nga ko gërëm fa walli na nga jubale wajhaka sa calmaay li sa jëmm ji booy julli sa taral masjid yi sa wetu jàkke ja alxaraami ji ñu ormaa gi baatu satara boobu nag dafa am ñetti firi danay firi genn wàll danay firi côté borom bi ne yéen jullit ñëpp waaye su ma kuntum fu ngeen mën a nekk yéen jullit nii fa walloo na ngeen jubal wujookum seen seen maaya satroo wetu kaaba ga wi na si na kaa ñi nga xam ne oto joxem na leen alkitaaba téere bi la yàlla mën a xam nañ ne na naka jubli gi ca kaaba ga alaqu mooy dëgg ndax mu ngi ca tawraat xam ñu ko mi rabbim goo xam ne tukkee ne fa borom wa mallaahu de borom bi subhanahu wa taala bi qaabilin mu aji yëg di am maa yaxamaloona wala atayta wallahi ndem andin nga lasina gaa ñi nga xam ne watul kitaaba joxe na leen téere bi kulli ayatin ci bépp kaawtee buy ne yàlla moo la yónni ma tabi'u duñu topp mu ko qiblataka sa qibla bi ma anta déet yow bi taabin nga aji topp qiblatuhum seen qibla ba taw ma baadum déet leen ci ñoom bi taabin ma aji topp qiblata baadin qibla yi ñeneen ñee kon nag wala ñu tabaata ndem ga topp nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awaahum banneex seen benn ba di ma jaaka a bu ñëwalee leen la ñu ne ma ci xam-xam di nekk yow ci seen yow yonente bi la mina saalimiina bokk nga ci way tooñ yi borom bi ne allazina gaa ñi nga xam ni aataynaahum jox nañu leen ak kitaaba téere bi yaarifoonoo nañ xam Muhammad kama yaarifoon nañu xam ne am naawum seen doom ya Abdullah ibnu Salaam ne man daal ni ma xamee Muhammad xamee ma ko suma doom yi sax gaa yi ne ko déet mu ne man ni ma xamee Muhammad ne yonente pire la xamee ma ne maay suma doom maay bàyyi suma doom yi pire ñu ne ko foo ko teg mu ne Muhammad xam naa ne pire yàlla ko yónni te xaw ma jigéen ñi la ñuy def jigéen ñi xam lu ñuy def fu ñuy dugg kon ni ma xam Muhammad xamee ma ko sama njaboot gi ibnu salaam moo wax loolu fariqan am na pàcc minhum bu tëkkee na fa ñoom léegi ba dinañ dëgg waxam tamit moo ñu yàlla a xam nañ ne lii mooy dëgg dëgg nag boo koy wuti demal ci sa borom alaq dëgg ak fu mën a nekk mi rabbika mu nga tukkee ci borom falaa takuunanna bul bokk bul nekk minal mumtariina ci ñuy werante borom ne wali kullin sax ne ku ne ci xeet wi ñëpp wijhatun jubluwaay wijha boo ko saraa waaw bi mooy tekk jubluwaay bokk la wajha wa mu wallihaa mooy aji jublu ko bon nag fastabiqoo da ngeen njëkkalaante al xayraati yiw yi borom bi ne aynamaa takuunuu fi ngeen mën a nekk ak ci lu ngeen mën a nekk yaati bi kum dana mo ñëwee leen allah yalla jëmeen bi mu gën di mbolo kenn dess inna la naka borom bi qadirun ajata la lakum sin lepp lu mën dañu min aytu xarajta indiwaat na ko foo mën a génn jublu fo walli na nga jubal wajhaka sa anam bi sa cëlmaay li sa talal ji di ci wetu jakk ja alxaraami ji ñor mal ja wa inna naka loolu haqu muy dëgg mi rabbika bu tikkee sa borom wa man lahu déet borom bi bi xaafilin muy aji bayyi xamaa tax muloona mu def li ngeen di jëf da koy baamu ngir wamin wa min aytu xarajta eh, fo meuna genn jëm fo leen nga jubal mali sëccal al masjid masjidil Harami, ci wetu kaaba ga waaye su ma kuntum fu ngeen meuna nek yeen julit ñep fo wallo na ngeen jubale wu jokum seen te may sataroo ci wetu kaaba ga mu ne li allah yakko ngeen mu nek li nasi yi nit ñi mu namm ci yahudi ak nasrani yi ci yeen lay ndax bi am ci mom lay demal ca kanam nga xol grammaire ba wala utti wala uttimma ci lañ ko ataf li kalaa yëkkoon na li naas matal ni ma ci sama xol aleykum ci yéen muy ilal lasiina ndara ña nga xam ne ci la ko ataf de ci ataf de wala uttimma ak it na ma matal ni ma ci sama aleykum ci yéen ilal ndara ña nga xam ni zalamoo dañoo tooñ bu ñu tukkee ci ñoom ñu du am ci ñoom lay ndax tooñkat lañ te duñ nangu dëgg doo ci am doo am ci ñoom lay fala tax sawum bu leen leen ragal yéen jullit ñi wax saw ni ragal leen ma ngir na matal seen xéwal gi ci yéen su ma xéwal ci yéen wala lakum ak it ndax kon yéen te te ngeen gindee ku jëm ci dëgg ñu ne ko ñoo yoon ñi nag ñoo la yónni lu wér a wér a mu ne kama na Euh, comme nañu yónnee fiikum ci yéen rasula ndaw loo xam ne minkum euh, mu ngi tukkee ci yéen yàlla muy jàng euh, aleykum ci yéen ayatina suñu alquran ji wa yusakkiikum mu leen di laabal ci bokkaale di leen sellal wa yuallimukum mu leen di xamal ba kitaabu téere bu tedd bi te muy alquran wala yi mata ak atte yi ci nekk yëpp wa yuallimukum mu leen di jàngal ma loo xam ne lam takkoonu nekku leen woon te mooy di ko xam borom bi ne kon nag faskuroo nii da ngeen ma fàttaliku bu ko defee muy tamit askur ku mu fàttaliku leen xadiisul xudsi yi euh, suñu borom moo ne ku mu fàttaliku ci wéetaayam moom dong dong man fàttalikoo ko man dong wante ku ma tudd ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo moo gën mbooloo moo nag léegi nag xadiisul xudsi boobu nag nekkoon problème ci borom xam-xam yi ñoom xam nga lu ñu déggoon mooy. Eh, yonent bi ak saaba yi man mbooloo ko gën man mbooloo leen mën a gën ndax hadiisu qudsi la ku ma tudd man kenn man yàlla ma mu tudd ko moom kenn ku ma tudd ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloom ma ñu ne yonent bi ak saaba yi man mbooloo ko gën ñu ne xanaa mbooloom borom bi mbooloo moo xam ne jibril la nga fa mikaayil asraafil asraayil te yonent baa fa moom mbooloo moo gën kay kon faskuruni askurkum na ngeen ma fàttaliku ma fàttaliku leen waaye nag jàngale moo gën siikar yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw ci jàkk ji fekk fa ñaari jéew fekk koy jàngale ak ñuy siikar ñaari géew mu ne bëreet dem ci ñey siikar toog fa ab diir ne ah ak a baax waay ak a baax yi ñu tekk mu ne waaye nag man lii tax ñu yónni ma jàngale ni ñëpp dem ci fi ñu jàngale moo tax ba kon nag jàngale moo gën moo gën ndax bala ngay def dara yàlla gërëm ko da xam dangay xam da def dara yàlla gërëm ko da xam moo tax yémaloo dara mhm. يا مبتقي طرق أهل الله وتسليكي دعنك أهل الحوى تسلم من التسكيك إن يذكروني لرد معترض يكفيك فاجعل سلافا جلالة دائما في فيك ne yee yow mi sàkk yoonu nit yàlla yi e yow mi bëgg suubu ci yoonu nit yàlla yi baaxal borom bànneex yi daxan ko ahlal wa xawaa taslam bu mu ci mën a taskiik ca sikki sàkk ba kon forcé nga lànk ba leen bu dul loolu sa xel mi bànneex ci ne rek kon nag nis kuróon yi doy na ngir lan ngir wañ ñi nga xam ne ñooy ñi lay kontoor mu ne kon defal turu yàlla muy sa muy sa ëwal rek muy sa lëwal fajal sulaafan addilalata daa iman fi fii ka mais defal turu yàlla bu màgg wi daa muy sa lëwal rek muy sa ataaya rek ngay xel rek xam nga xam nga sulaaf ci arab mooy dëñ dëñ mooy ñi xam ñi xam ñi xam soq ak wol dëñ mooy dog bu njëkk bi ñu njëkk a dëbb mooy dëñ mooy lëwal mooy sulaaf muy naan goo xam ne njariñ ko raxul ndox raxul dara noonu lañ noonu la jógee ca teen wala ca robinet ba wala soow mi noonu ca nag wa wala noonu la jógee meew ma noonu la jógee ca nag wa kooku mooy sulaaf bu ataaya it mooy ata loo xam ne njariñu ko mu ne kon nag jëlal turu yàlla def ko muy sa dëñ fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin nee na waskurool yi ngeen sant ma nag da ngeen sant ci sama xéwal gi wala takburoon yi bu leen mi weddi ya yàlla si naa amoon yéen way gëm yi ita na ngeen dimbandekoo bi sabri ci muñ wasalaate ak julli da ngeen muñ ak julli ndax ne ina laa naka borom bi maa sabri nam nga ànd ak way muñ yi waxul maa sàkkri de tudd na ne parce que loolu wax ne wax na loolu de waaye waxul maa sacrifié nag li ko waral mooy bala ngay sant yàlla dangay ngay xaw a dee rek foog nga muñ dagoo alhamdulilah foog nga muñ jaar ci ay jaar yu méttee méttee métti euh, muñ nag euh, ñetti martaba la dafa am lu ñuy wax sabrun ala sabrun an sabrun fii ñett sabrun ala taati mooy muñ topp yàlla sabrun anil masiyati muñ mooy yàlla sabrun fi fil balaa'i muñ nattu yàlla sabrun ala sabrun an sabrun fii muñ topp yàlla mooy lan mooy li ma la digal sax ca boo kontaanee bu mu tax nga bañ julli boo jaaxlee bu mu tax nga waxtu wi boo ñàkkee bul bàyyi waxtu wi boo jaaxlee bul bàyyi waxtu wi boo bëggee sax ca ñu ne suñu problème mooy ñaari yëf mooy suñu problème ñaar ñaar ñun buñ jaaxlee jaaxle duñ tala julli duñ tala julli moom buñ jaaxlee duñ duñ a julli bu demee ci xew la kontaan solo ba jekk duñ dem jàppe ndax duñ yàq suñu colaay ga duñ ko nangu kon ana muñ topp yàlla dama dama il faut mu jàq wala mu jaaxle wala mu sawar wala mu sawar waaye koo xam ne yow boo sawaree doo julli boo jaaxlee doo julli kan ngay julli ba te li ëpp li ëpp ñu ëpp ci gune yi mooy seen jikko dem ca xaw la takk say dàll ba mu baax takk sa tubéy ba mu dëgër nga ne duma ma julli feeg doo ma ci kër ga feeg ñibbu ma du ma julli wala jigéen ñi defar ba baax. xaw ma Makki lañ ko tuddee xama nga ne kër ga du su ma suma yëwee yi du ma jàpp bon li ma def dafay deñ bu euh, dal xef yi bu dal we yi diwtiñu mu xonq coy nga def bu ma sëmma mu deñ waaye sax ñu ñu tane nañ ñoom ñoo tane ñi nga xam ne ñoom duñ ko mës a def duñ ko mës a def moo tax kooku ma muñ topp yàlla muñ topp yàlla muñ tooñ yàlla mooy na ko taxoo loo moomul bu ko laal loolu lewul bu ko laal moo xam lu ñuy laal la moo xam lu ñu jox jëm la kooku mooy muñ mooy yàlla lii nag moo të nag xam nga lu tax ñun ñi nekk ci jàkk ci sàppe yi bi génnee ñooy def lu neexul yàlla moo tax Sénégal kenn neqa naqadee réglé ñun ci biir jàkk yi ñun bu ñu génnee jàkk ji bu ñuy génn ci buntu ji rek commencé nañ jëw booy sëlmal rek yaa ngi ci deru jàmbur booy sëlmal diw nii diw na le diw na le ana tuyaaba ja est ce que diw du ko jël est ce que diw du jël sa tiyaabo ji moo tax bu fekkoon ñiy topp yàlla di muñ topp yàlla muñ nañ toon yàlla ba sàngara du jar fii Sénégal ba PME du fi am mukk waaye ñi nga xam ne ñooy muñ topp yàlla ñoo mënta muñ mooy yàlla mooy problème bi muñ jàmm yàlla ñoo mënta muñ tooñ yàlla muñ nattu mu ñettal bi boo feebaree nangul ne yàlla la boo ñàkkee nangul ne yàlla la boo jaaxlee nangul ne yàlla la ñoo lànk nag ku feebar joxoñ nit baaraam ku ñàkk joxoñ nit baaraam kuñ fal nga follee ko joxoñ nit baaraam ku falu ne diwuma fal doo sant yàlla mukk kenn ngay sant mooy suñu problème ku falu rek sant keneen ana yàlla mi la fal ana yàlla mi la fal ku folleeku xarab keneen ku la folleeku dul yàlla ku la folleeku dul yàlla kon ñetti ñoo fi nekk léegi nag ñetti muñ yooyu ñetti muñ yooyu muñ nattu yàlla ki muñ nattu yàlla suñ borom moo koy jox ñetti téeméer daraja ñetti téeméer daraja euh, diggante ñaari daraja yu nekk yem ne diggante asamaan suuf benn yoon benn yoon kooku mooy ki muñ topp yàlla ki muñ nattu kay ki muñ nattu muy benn ki muñ nattu laa wax ni suñ borom moo koy jox ñetti téeméer daraja diitu ñaar dara juy nek mu ngi yem ñu diggante asamaan ak suuf muy ben ki nga xamni da fay muñ top yalla mom top yalla suñu borom koy jox daraja juróom benn téeméer diggante daraja bu nekk amuram ka mel ni diggante asamaan ak suuf ñaari yoon ñaari yoon kii muy mooy yàlla suñu borom moo koy jox juróom-ñeenti téeméer daraja juróom-ñeenti téeméer daraja diggante daraja bu nekk ak morom ka toll ni asamaan ak suuf ñetti yoon kon boobu moo jëpp moo cëpp doole moo cëpp doole kon mu yaa ngi noonu sabru sabru ala taati sabru anil masjid sabrun fil balaa yi mu ne kon nag na ngeen di mën a ko muñ